maa ngi taxawal fii ala ala maa ngi toog fu jege di leen déglu wahaab yi bu fi tànk dama ko naan tëb bit tàkk ca xaj la ñu wax ngeen dem ku ci tàllalu làmmiñ naa ko dog kuy montage nag ni lëndëmal teg làmmiñ wu kenn xamut loola nag mooy seenu cër wasalaamu ala man ittabaa al huda aoudu billahi min alcheytan arrajim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 di dellu siwaat ci beneen taxawaay ci beneen masala boo xam ne dafa dox ci diggante gaa yu baax yi nit yàlla yi diggante boroom xam-xam yi diggante ñiy xeexal diine ak ñi nga xam ne dañ ciy dugal ay yàq ak ñi nga xam ne dañuy bokk bokkulu ci diine ji ak di ci woote ab cër fekk ñoo ko gën a sori ak ñi nga xam ne e, ñooy woote woo dundal diine fekk te yoo ñooy dunde diine ji ñi nga xam ne ñooy woote ne ñoom ñooy ahlu sunnati wal jamaati te fekk wax jooju tegewul ci lenn lu dul ay fen ak woru ak yàqule ak xàqi mag ñu baax ñi nga xam ne moo këpp seen kaw moo tax saa su ne nit ci ñoom lu mu doon kilifa kilifa nga gis ko ñépp toog mu yor micro tiim leen ci turu waxtaan ci diine ak waaraate ci turu xam-xam waaye di wax loo xam ne maanaam ay sos lay doon euh, loolu mooy ñi nga xam ne ñooy wahabi yi loolu mooy seen chima mooy seen doxalin mooy seen màndarga itam mooy di wax lu dul dëgg saa su nekk te loolu nag ñi nga xam ne ñoo xam ak ñi xamul ñoo ci yem boroom xam-xam yeeg jaahil yi ñoo ci tolloo waaye nag ku nekk ak façon ba nga koy defee am na koo xam ne da koy bind waaye mbind ma boo ko xoolee man ngaa gis ay waxi jàmbur yoo xam ne da koo sàcc te boo demoon ba biir këram indil ko këyit gi ne ko mi ngi nii yàqu sàccee fii dara la dul wax leneen loolu mooy li jëm ci wàllu boroom xam-xam bi ëkk baru misaal mooy seen sëriñ ñoo wax docteur Mouhamed Ahmed ak baax ci jàmbur yi nga xam ne daf ko sàcc ba noppi dugalu ko ci sitam ne mugg ak moom mënu ci indi benn lay wala kenn ku takk ci moom waaw di sàcc di tax ci sa boor nag te yaa jiite nit ñi yow ñi ngi jiite xawma man ban qualité moo nekk ci ñoom loolu mooy ñi xam ak ñiy gëstu ñi gëstuwul nag ñoom dañuy takk rajo yi rekk takk rajo yi rek di fas yéene wax lu dul dëgg ba jant bi soo rek ñu dem tëri kenn ca ñoom ca ña jàngul tey wax mooy Omar Sall mii ñun nag duñ tàyyi ci dindi ay lënt ak tontu ñi nga xam ne maanaam ay yàq rek la ñuy def ci diine ji loolu duñ ci tàyyi loolu jaamu yàlla la ci ñun yàlla ko yàlla nangu Omar Sall nag li ñuy wax rek mooy man yudlilillahu fala haadiya la yàlla ni muy gindee ay nit teg leen ciw yoon noonu ci dogalam la ñennet di saaraane saaraan goo xam ne wàññeeku ak teguwaat ci yoon yi duutu topp abadan ndax ñooña dañuy nekk ay juhaal waaye ci nattub yàlla mu teg leen ci kanamu ay nit ñu jiite nit ñooñu di leen wax xam nga ñooñu duñ mës yëg ne ñoom ndekete dañoo war a dal baax mm, loola ci xam-xam ak ci xel ak ci nite ak ci civilisé lépp dañ ci dellu gannaaw waaye duñ ko yëg ndax daa am ñu toog ci seen kanam di leen fettasu ak lu ñu wax ñu ne eskay ak fu ñuy woote ñoo fay wax te kat amul lenn lu ñuy wax loo xam ne soo leen ko indiloon nii mën nañ la ci indil lay yu wér moom nag yàlla dafay def ci xool bi bañ tasawuf ak lépp lu jëm ci tasawuf même su fekkee ne la jëm ci tasawuf lu baax la moom bët bu ñaaw la koy xoolee waaw bu fekkee ne mu tasawuf yi ñu baax lañu moom ay wëyu la leen di gisee moom bët boobu la leen di xoole bépp liggéey bu am ci sawal lépp loo xam ne nit yi tasawuf yi ñu ngi koy def moom ay naxaate la pour moom ay yàq la ci diine ji pour moom ay triande la pour moom maanaam lépp lu ñaaw bët bu ñaaw la koy xoole moom lépp bët bu ñaaw la koy xoole xam nga loolu nag daanaka nattu dëgg dëgg dëgg mooy loolu nit ñoo xam nit ñu baax lañ waaye yow ñu bon rek nga leen ni maanaam mos a jàppee maanaam mënu leen jàppee leneen loolu nag ku yàlla sànq noonu lay mel wa aynu rida an kulli aybin kalilatun kama anna ayna suxti tubdil masawiya noonu muy xoole tasawuf nag day dem ba ci mbir yi nga xam ne maanaam yu nekk la comme ñu ne yàlla dafa am turam woo xam ne moom la ñuy wax ismullahil aazam ismullahil aazam nag boroom xam-xam yi wuute nañ ci ñii ne lii la ñii ne laa la waaye nit yi tasawuf nag am nañ ci ñoom itam seen wax ci biir wax yooyu nga xam ne dafa wuute walla yu mel noonu waaye moom mu tasawuf yi ci dugg seen wax moom loola kenn mënu ko nangu moom maanaam day nekk caaxaan wala mu tasawuf ñoo ci jublu tiriyaande nit ñi ak di leen nax ak di leen nàngam ak nàngam maanaam moom bët boobu képp képp képp lay xoole te waxoon naa fi itam ne Omar comme jàngul màndarga gi gën a fésal ñàkk jàngam mooy la ma sama sëriñ ba sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Gaye daan wax radiyallahu anhu moo di ne ab wahaabi daanaka maanaam ay ñetti aaya ñaari hadis loolu mooy formé ab wahaabi maanaam yooyu bu ko xasee ba am ba tiiku léegi moom ab daaye lay doon daaya lay doon maanaam di woote di wax ci diine ji di nangam fekk du comprendre yeneen aaya yi nuñ tëddee du comprendre yeneen siyaaqu ahadis yi nuñ tëddee loolu feeñoon na ci suñ diggante ak Omar Sall ci salaatu ala nabi siixatil ibrahimiya siixa ibrahimiya pour moom benn siixa rek la moom lay wax moom lay défendre moom lay kii beneen bu dul boobu mu ne loolu ay caaxaan la te fekk ci xadiis yi boo demee ay siyaax yi siyaax yoo xam ne yëpp ibrahimiya la nga xam ne du wax ne ibrahimiya bari nay siyaaxa siixa boo ci def baax na mais bu dul ibrahimiya dama koy bañ waaye danaan dul siixa bi muy wax moom te mooy ala muhammad wa ala ali muhammad kama baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim nga xam ne bu amul ali ibrahim wa ala daanaka loolu ay caaxaan lay doon budul bii baaxul xam nga loolu maanaam ab nilaar képp koy wax noonu muy def nag ci salaatu ala bi nga xam ne bu dee quarante siixa moo ñëw ci sunna benn la ci mokkal te buy défendre day wax ne benn bii ku deful ne bii defoo dara nga xam ne sànni na yee yonente wax sax nooneet la koy defee tey ci lii nga xam ne mooy ismullahi al jàpp ay mbir rek daal lii mooy ismullahi al léegi ñeneen ñi te mooy maanaam euh, gaa yu baax yëpp ñoom ci caaxaan ak jéem a nax nit ñi lañ nekk nañ leen moytu lii mooy ismullahi al azam lii lay yonent bi wax nangam ak nangam di julli tey sëlmal ci ar rasul muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahabaam ak taabiina lahu bi ihsanin ila yawmi ddin ba tey nag la ma waxoon ca laa nekk ba léegi Omar daf fee def waxtaan wu gudd woo xam ne day contre salaatu yi nga xam ne moom la sufiyanke yi di def bépp salaatu bu dul siixa bi muy wax te ibrahim yi ëpp na benn siixa siixa bi mu wax rekk la jàpp ne booba bu dul booba rek dafa soj baaxul na ko sànni ca àll ba fekk am na yeneen vingt yoo xam ne moom ci yonent la jógee sallallahu alayhi wa sallam te yonent moo digle ñu jullee noonu yooyu yëpp moom ci waxam da ko sànni ci waxam daf koo sànni nooneet la lay sànnee yu bari nga xam ne danaan baaxul deesu ko def ma waxoon ne siira bii muy wax moom ci wolof ñi ngi julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa loola du siira ibrahimiya du siira suufiya du du benn du benn siixa ci siixa yi am te du julli ci yonent bi tamit loolu du julli ci yonent bi maa ngi koy waxaat loolu du julli ci bi ah ñi ngi julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu du salaatu ala nabi xam nga moom dafa waxoon ne siixa bu dul siixa ibrahima du salaatu ala nabi te loolu maanaam daanaka mbokkam mu ko dégg sax da ci ciy rus moo tax du ma ca sori waaye li ma wax man mooy li mu wax moom ne ñoo ngi julli di sëlmal ci yonente bi salaay sallam loola du julli ci yonente bi loolu du salaatu ala nabi te du wolof wolof sëlmal mooy jeexal julli pare ci julli loolu la ñuy tuddee sëlmal bu ko nit ki di def nag day fekk moom day toog bu koy def itam dafay ànd ak action boo xam ne moom lañ koy defee loola boo ko boolee ak la nga wax ak na nga def looloo tudd sëlmal looloo tudd sëlmal waaye du baatu assalaamu aleykum mooy sëlmal déedéet ndax baat booba su ma jàkkaarloo ak yow su ma la ko waxee loolu du tudd sëlmal dama sëlmal ci yow déedéet dama la nuyu su fekkee ne dama koo wax ci bi may jeexal julli loola sëlmal la tudd tuddul nuyoo su ma dajeeg yow joxanteeg yow loxo wax la ko nag loolu nuyoo la tudd kon sëlmal du julli ci yonent bi baatu sëlmal kenn mënta sëlmal ci yonent bi mënta ne loolu dama koy répété waat ndax bi ma ko waxee ba pare dafa am ñu ñëw di jéem a défendre Omar Sall mais dolli waatuñ ko léegi dañ ne ñoom dañuy dem wax ko ci seen groupe ya ne diw mo diw sàngam wax na lii léegi yéen loolu leen ci xalaat waaw maa ngi leen di xaar nag seen xalaat boobu ba léegi maa ngi koy xaar maanaam bu ñu demee ba tas ko ci seen groupe yi ñu wax ne ca lañ koy tasee suñ koy ca tasee maa ngi leen di xaar maa ngi julli di sëlmal ci yonent bi loolu du wolof du julli ci yonent bi sallallahu alayhi du lu baax du dara du wolof yu wér boo ko yóbbu woon ci arab nag nga ne usalli wa usallimu ala rasulillahi man la loolu indil ma ci dalil bu dee arab demal indi ci dalil dalil bi mooy lan dalil buy wone ne booy julli ci yonent bi yow jaam bi julli gi mën nga ko askan sa bopp yow ne yow yaay def julli gi maanaam nga am siixa boo xam ne yow jaam bi yaay julli mais yàlla du julli yaw yaa koy def siixa boobu fan la saxee ci benn xadis ndax yonent lim ñu jàngal bi ñu nekkoon nan lañuy ñuy jullee daf ne quulu allahumma salli yàlla julli la wax waaye man maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi loola ku ko xam nag ñu ko baaxee ñu xam ne loolu am na mais gisuñu ko ñun ci benn téere boo xam ne yonent def ne dafa am siixa boo xam ne du allahuma salli du yaa rabbi salli du mawlaaya salli du benn du yàlla jullil man jaam maa ngi julli ci yonent bi man jaam bi maa ngi julli loolu bu amee xadis ci arab nañu ko indil wolof moom baaxul maa ngi julli di sëlman loolu baaxul léegi nag maa ngi leen di xaar ci julli googu ak sëlmal ñoom am nañ siixa boo xam amul fenn fu mu baaxee du wolof du arab nañ ko lijjanti ba noppi door a song yeneen salaatu yi mbokk yi léeg ci nit ñi dañoo jàpp ne ismullahi al azam ñenn ñoo ko xam ñeneen ñi xamul maanaam ñu jàpp ni xawaasu naas yi ñoo koy xam mais awaamuhum duñ ko xam moo tax léeg-léeg nga dégg suuf yi ak ñu mel ni ñoom diw daa am ismullahil azam te fekk yooyu yëpp dañu koy def di ko naxee nit ñi ismullahil azam mbokk yi ku jàpp ni bàyyi diw moo ko yore rek wala ku bokk ci diw am na ko ñeneen amuñ ko rek juumte dal na la ndax loolu naxee la bu seen daara doon naxee taalibe yi loolu nag mooy li ma waxoon léegi rek ci muqaddima ji mooy Omar lépp luñ ne suufiyanke yi wax nañ ko naxaate la ci suufiyanke yi jublu lépp luñ ne niti tarixa yi nee nañ nàngam loola du dëgg ci Omar asaasan du dëgg léegi naxaate la jublu te moom kat bëggul ku ko def loolu de maanaam boo ne ko Omar day def daawa di wëndeelu di dem ci dëkk bee def conférence fee wax fee ŋàññi fee ibbi ab seen youtube am yooyu yëpp xaalis la ci jublu gëmul dara <coughs> du ko nangu de moom lim mën a nangu mooy ñeneen ñi lépp luñ def sellul lépp luñ def baaxul lépp luñ def jubluwuñ ci lu baax naxaate lañ ci jublu moom nag lu mu def dëgg la lu mu def lu wér la lu mu def yàlla rek la ci jublu jubluwu ci leneen loolu nag mooy la yàlla di tere wala tuzakku anfusakum maanaam di xoolee nit ñépp bëtub yow ngay xool sa sa bopp yow bi te nag beneen bi may taqrir mooy nit ñi tu caagee na ñenn ñi ñoo wax nangam ak nangam nangam déedéet ismullahil azam amul ku wax ne ñépp ko xam loolu moom loolu mooy li jëkk nag liñ war a njëkk a wax maanaam ismu laay amul kenn ku wax ne lu siiw la lu fréquent la ñépp ko xam amul loolu amu ci ismu laay laazam moom lu ñenn nit xam la ñeneen ñu ñi ëpp réere ko ñi ko xam ñu néew lañu ñi ko réere ñu bare bare bare te moom ci ñi ko gën a réere moom mii di wax nii ci la bokk muy benn loolu dinañ ci ñëw ci kanam dañuy wax li muy jàpp ne maanaam sufiyanke yi ñoo wax ne ismu laay lu nëbbu la léegi ñeneen ñëpp dañoo xam ne lu feeñ la ñoom ñu koy leeral loolu du dëgg loolu du dëgg ndax moom ni mu jàppee mbir yi ne noonu la tëddee loolu tëddewul noonu léegi danañ ci dem nag benn par benn euh, Omar Sall nag na ñépp xam ne maanaam ku am solo la ci wahabiya yépp gaa yi kañ lañ koy bàyyeeg di ko kii suñ ko sonalee suy wax waxi conneries ñu koy tontu danañ ci jéem a jàpp seen kem kàttan waaw yow bi ngay wax Omar la nga fa wax ne loola nangam nangam toujours dañ koy wutal ay lay ci ngay xamee ne ku am importance la ci wahabi yu ne cest à ñun dañ koo banaliser nit yi tarixa yi daanaka boo ne Omar rek comme fenkat la daanaka dañ duñ duñ ko duñ ko jox benn importance daal ah Omar Sall ndànk fekk loolu njuumte la gaa Omar Sall tekkiwul dara mais ñun ci wàllu gëstu ak tontu dañ ko war a fullaal ndax ñi mu bokkal donte ku ca ñàkk fayda la waaye ñoom dañ koy faydaal ndax moom xajjaaj la ci biir dawla boobu waaw dawla bi mu nekk moom moo jëy seen xajjaaj xajjaaj lu muy liggéey ci dawla bi la mu fay liggéey mooy wax exécuté li nga xam ne buur mënu koo tëb rek def ko moom mooy ñëw duma ku baax saaga ku ku tedd ak yu mel noonu eh, bis mi eh, dooleel dawla bi ak jéem ko aar ak yu mel noonu noonu noonu noonu nag la koy toppee di dem maanaam moom nag rôle boobu nag la am ci biir wahabiye yi ci biir réew mi maanaam lu ñu war a wax ci lu ñaaw ci lu bon lu nit ragal lu nit maanaam ñu riir ñi li ñu war a wax moom yooyu yëpp moo koy dajale di ko wax moom nga xam ne dafay jaxase xel yi dafay dafay dooleel seen ngir mi nekk ak yu mel noonu donte moom ñamul bokkal sa xam nañ ne firul yi waaye nag nañ ko bàyyi fii ndax moom dafa baax ci gaay tey saaga day wax lu bon day day wax wax ju ñaaw dafa am fit waxi maam yooyu moo tax ñoom dafa lu rëy la ci ñoom donte ku ñàkk fayda la ci ñun waaye nañ koy ful laal ngir ne ci moom lañ mën a jaare yi ñuy ruuma daat di ko waxantu ci suuf ak di ci réeral gaa yi moom moo koy wax ci bitti bu ko waxee ci bitti nag ñun bu ñuy tontu dañoo am yéenay tontu bépp xel moo xam ne looloo nga ca paa jëmmi Omar Sall waaw li mu wax nag ni am na ñoo xam ne képp koo xam ne dangaa jàpp ne eh, ismullahi al azam bàyyi diwa ko moom loolu kenn jàpp ko amul benn wëli yu boo xam ne yow yaa moom lismullahi al azam mu ne ku bokk ci diw diw sàng ku fa bokkul doo ko am ku fa bokk loolu tamit amul amul tarixa boo xam ne ku fa bokk da am ismul azam ku ci ku fa bokkul doo ko am loolu tamit <laughs> amul fenn ku gëm sëñ diw da ngay am ismul azam ku ko gëmul doo ko am loolu amul ci tasawuf gi yëpp loolu mooy benn kon nag ñu tàmbali wax ne ismul azam turu yàlla wi nga xam ne moom lañu tudd ismul azam te itlaaq boobu wala tuddee boobu ci yonent bi la jóge yonent bi moo tuddee ne ismullahil azam ismullahil azam loolu yonent a ko wax tur loolu nag ñuy wax ismullahil azam nag jullit ñépp ñoo dëppoo ci ne du lu fréquent du loo xam ne ñépp a ko xam lu nëbb la daanaka ci ñépp walla ñu bari lu dul ku yàlla baaxe nga xam ko loolu faw ñu démarrer ko mbir mi nag doora nag benn benn li Omar di wax nag walla fi muy teg ay waxam nag ñu jéem koo def benn par benn baax na nag ci ndorteel li bala ñuy dugg ci loolu ñu leeral ne lismulaay la azam moom diine moo ko fi indi du ay mbiri tasawuf de xaarun ba tasawuf ñëw ñu door a xam lismulaay la azam déedéet lismullahi l azam yonent moo ko wax ismullahi loolu lu muy tekki ismullahi turu yàlla bi al bi gën a màgg turam wi gën a màgg ci tur yi kon ci turu yàlla yi la bokk tur woowa nag yonent itam moo wax ne lu ci waay ñaan yàlla def ko ci saasi tur woowu réy la de lu ci waay ñaan yàlla def ko ci saasi nit tasawuf yi nag dañuy wax ne lismullaahil azam nag mbir mu nëbbu la maanaam tur la wow ñi ëpp ci xeet wi duñu ko xam loo xam ne loo ci wax yàlla def ko ci saasi ku xam tur woowu loo ci wax yàlla def ko ci saasi kon amaana ku ko xam boo ne mbas mi na fi jóge yàlla dama bëgg mbas mi na fi jóge ci tur woowa nga xam ne xam nga ko te muy lismu laay laadam mbas mi dafiy jóge tey loolu ñëpp mën nañ ko xam lu ci waay ñaan yàlla def ko ci saasi ci mutasawifa yi itam dañuy wax ne tur woowu kon daanaka dafa nëbbu ci ñi ëpp ci xeet wi ñi gën a néew ñoo ko xam lool benn la ci ñaareel ba tur woowu deesu ko maanaam deesu ko ñaan lenn ci lu jëm ci àdduna maanaam lenn lu jëm ci soxlay àdduna loolu tamit beneen critère la wala ba beneen eh, ponk la mu rëy ci dégginu mutasawifa yi ci lismullaahil azam benn bi mooy ñi gën a néew ci xeet yi maanaam du lu fréquent lu nit ñi xam ndax critères yi nga xam ne moom la ko yonent bi sallallaahu alayhi wa jox waaye kenn du ko ñaane lenn lu jëm ci àdduna maanaam képp ku ko am ku ko amoon masalan nga ñaanee ko ne mbas mi na fi jóge wala nga ñaanee ko lenn ci wàllu àdduna comme li nga xam ne Omar Sall loolu lay ñaanee ndax Omar misaalam yëpp amul lu jëm ci àllaaxira wala amul lu jëm ci wàllu yàllaak gën koo sopp bokk ci wali yu yoom yeeg ñaan gu mel noonu amu ko moom Omar lim am mooy ku bëgg a takk jabar ku bëgg a am doom ku bëgg visa ku bëgg doon milliardaire ku bëgg a jël meeru jaxaay yooyu moom moom moom loolu mooy ñaanam lool nag ci tasawuf dee su ko ismulaay laazam bu nit bu ko yàlla yankee waloon ba nit am ko am lismulaay laazam boobu du ko ñaanee lenn ci loolu loolu nit tasawuf kon xam nga ne naxaate gi dàqu na kon naxaate gi day dàqu ndax lismulaay laazam dee ko ñaanee lenn ci lu jëm ci wàllu àdduna lenn lu jëm ci wàllu ak agrad nafsaaniya lañ koy tuddee al agradu nafsaaniya ku ko def maanaam musiba moom la lay jural du la jural kii de maanaam la nga la nga doon wax man nga ko am waaye da nga koy am nag ca tur woowa ndax turoo lu ca waay ñaan mu nangu waaye nag boo ca amee adduna boobu nga doon ñaan loola dana la jural meneenu mbugal ak i jafe-jafe yoo xam ne mooy doyadal gi nga doyadal tur wi ba àdduna dafa tuuti par rapport ak ismullaahil azam mutasawifa yi de loolu lañu wax ci tariqa tijaan boo demee ci téere bu ñuy wax ar rihlatul xabibiyatul wahraniyatu mi ngi nii ma yor sama loxo Seydi Sukkarij moom moo ko bind ci biir daf wax na ci ci wàllu lismullaahil azam mu wax ne lismullaahil azam dafa nekk mbir moo xam ne lu nëbbu la lu nëbbu ci maanaam xeet wi comme laylatul qadar comme yeneen bis comme yeneen nangam ijtihaad bu ak tawfiqu yàlla mooy tax nit ki am ko mais nag su ko amee lenn du ko ñaan du ko ñaanee tur woowa lu jëm ci wàllu adduna wala yu mel noonu lu dul ne su loola amee mbugal dana wàcc ci kaw maanaam jafe-jafe ak i coono yu bëri ci loolu wax na ci lu bëree bëri kon tur woowa daana ko am ko est-ce que wóor na sax ci ñun ñi moo tax Seydou Sukkari ca jinaayatul tawil maanaam jinaayatul tawil yu fi Ahmed Lo yooyu jinaayatul muntasibil aani bu Sukkari Sukkari dafa soññi taalibe yi ñu bañ di yittewoo naan damay wut ismulaay laazam ak dama ko war a am ak nangam ak nangam ak yu mel noonu ndax mu ne loola eh, maanaam yàqule ci gaaw na ngir ñaari mbir moo di ne soo ci sàkkoo yeneen yu woyof yi beneen bi mooy su fekkee eh, wër gi koy wër di taseeg ay naxaatekat yoo xam dañ naan am naa lismula la boo fayee nangam danaa la ko jox nga fay leen te képp ñëpp ñi nga xam ne dañ koy jaay kenn yoru ko ci amu ko te loo xam ne boo ko amoon doo ci ñaan sa soxlay àdduna soxlay àdduna dafa tuuti par rapport ak loolu cest à kon lan cay ñaan mooy sa sa boroom lan cay ñaan mooy jege yàlla ak sopp ko ak bokk ci kàngamam bi ak nanga ak nanga ak nanga al qurbul al eh, loolu la ñuy loolu la sàkku ci tur wu màgg woowa ku ko am sa digganteeg sa boroom ngay lijjanti waaye waxi àdduna moom danga koy jéggi ca kaw nekk feneen loolu loolu nu mu nekkee naxaate loolu dafa wóorul sax nit di ko wëri waaw léegi nag kon euh, Seyd Sukari wax na ci lu bëree bëree bëri ci maanaam njuuj njaaj yi ci am ak naxaate yi ci am ci wàllu di woote woo naan am naa ko te fekk amoo ko yu mel noonu yooyu yëpp mi ngi jinaayatul muntasibil aani euh, pour wone ne <laughs> nit ñi omara yi fo ak ñamu àndal waaye nit ñi moom ci dëgg gu wér lañu nekk tasawuf tariqa tijaan tariqa yi ci dëgg gu wér lañu nekk fowuñu folowuñu waaw te lépp luy caaxaan ci menn mbir muy ismulalasam muy salaatu fatiha muy nàngam lépp luñ ci wax ci caaxaan bind nañ wane ne loola caaxaan na na ko daw moytu ko ba ci lismulahi laazam ji yenn yi ci am wala yiñ ciy wax te du noona wala nangam na yooyu dañoo bind téere leeral ne yooyu caaxaan la moytu leen ko kon kuy foon na jàll ca àll ba ànd ak Omar di dem waaye fii moom jaamu yàlla kese kese kese moo fi ne léegi nag ismulaahil azam moom yonent bi moo ko wax nañ déglu Omar mu wax ñu lan la yonent bi wax ci ismulaahil azam ci ñaan mu nangu ñaata soxla nga am kenn xamul nu mu toll da bëgg a nekk milliardaire ñu bëri moom lañ bëgg da nga bëgg am liggéey da bëgg soxna da ngaa bëgg tukki dem Europe dem ci diaspora bi nekk moodu moodu da bëgg am xaalis da bëgg teraanga loolu yëpp du ay ñaan du ay soxla buñ la nee tur bii du kenn ci nit ñee ki ko wax mooy ki yàlla yonent bi nga xam ni laa yantiqu anil hawa yonent bi la waxee bànneexu ko waxee de kon nag yow mi may déglu baal xel ne kado bu rëy mi nii bu doon sëriñ yi da ngay dégg ñu naan secret bi dama koy jaay waaw secret bi maa leen ko jox fekk du secret boo xamante ne bu nëbbu la. koy wax euh, léegi nag kon leer na ne yonent bi saa sama moo wax lisu laalam lisu laalam kon du affaire u tasawuf kooku affaire u diine la waaye nag lu réer la lu lënt la lu lëndëm la lu làqu la comme ni laylatul qadr làqoo li tax wahaabi léeg-léeg bu bëggee fen du ci am problème pour fen Omar daan la eh, gars yi dañ ne lu nëbbu la dañ koy kii dañ koy nàngam fekk du lu nëbbu lu fés la parce que yonent lu ko yàlla yónni rek daf koy pour ñëpp la koy wax loolu day nuru dëgg ci kaw te du dëgg nag laylatul qadri yonent kan la ko wax ak xéewal gi mu ci wax yépp te alxuraan a wax xéewal gi laylatul qadri xayru min alfi shahrin yonent kan la wax laylatul qadr kan la ko wax ak ban bis la wax ne mooy laylatul qadri bi def ne nañ ko wër lu tax waxuñu moom loolu nëbbu na wala nëbbuwul lan moo tax yonent waxuñu ne bisu vingt-neuf mooy laylatul qadr xalaas nga xam ne léegi werante dootul am laylatul qadr bi ñuy wax naan xayru min alf shahrin mooy 17 mooy 20 mooy 13 mooy 14 mooy nangam lu tax waxu ko ci biir koor gi wax ko benn yoon lan moo fi des làmbaatu ku nekk def say calcul ne lii laa jàpp wala nga jàpp ci ay xadis ne lii laa jàpp ne mooy nangam lii laa jàpp keneen jàpp leneen keneen jàpp leneen loolu moo fi des kon nag ismulaay laazam bi nga xam ne lu ci waay wax mu am ci saasi yàlla def ko ci saasi loolu nees lay fesee ba ñëpp am ko xanaa kon kenn dootul sonn te bàyyil xel nag tasawuf dañoo wax ne ismulaay laazam dee ci naan wàllu àdduna waaye itam itam daa làqu ci mbooleem xeet wi ñenneti ñenneti nit la yàlla defal tawfiiku ñu xam ko am na xadis bu ñëw doonte xadis bu daif la ci Aïcha yonent bi sallallahu alayhi ne ko e, yàlla xamal na ma tey yàlla xamal na ma e, turam wi nga xam ne mooy ismullahil azam mu ne ko jox ma ko yaa rasulallah yonent ne ko duma la ko jox ndax tur woowu deesu ji ñaan daray àdduna dégg-dégg boobu nag doonte xadis boobu bu daif la ci mawasin yi ñi ñiy nattee ay xadis waaye loola lu wér la ci mutasawifa yi ñoom noonu la ñu jàppee lismullahi laaba lu làqu la yàlla xamal na ma ko moo mën a am ak yàlla defal na ma tawfiiku ma am ko ma xam ko ak nangam su ma xamee ba noppi nag daray àdduna deesu ko ci sàkku waaw deesu ci sàkku soxla comme li Omar Sall di wax ni boo soxlaa da bëgg visa da bëgg xaalis da bëgg nanga lool kay Eh, yi ko man du jeex du xaaj yooyu koy gaa yaa ngi fi dem leen ci nitu ta nitu tasawuf yi ñu jàngal leen xamal leen boo bëggee am xaalis nooy def looy wérd boo bëggee oto looy wérd boo bëggee boo bëggee tukki looy wérd boo bëggee ay këyit yu sotti looy wérd boo bëggee doom boo bëggee alal looy loolu kay du jeex du xaaj te doo yegg ci lismulaay laazam lismulaay ëpp na loolu ëpp na loolu

boo xam ne loo ci ñaan yàlla def ko ba fii waxtaan wi toll feeñagul timit ne ismulaay la azam lu nit ñi wuute la loolu feeñagul fii te loolu ci ndoorteelu waxtaan la waroon a leer ne lismulaay la azam ñaar fukki wax wala lu ko ëpp am na ci nangam mooy lismulaay la azam ci biir borom xam-xam yi laa wax de waxuma tasawuf ci biir borom xam luy ismulaay laazam ëpp na ñaar fukki wax loo xam ne ku nekk nee ismulaay laazam mooy nàngam kii ne am ay boroomi xam-xam yu wax ne ismulaay laazam amul ismulaay laazam amul li am mooy lan kon li am mooy turu yàlla yépp yépp yépp benn magu ci sa morom benn ëpp ci doole sa morom ëppalante gënalante ci turu yàlla yi loola amul am na ñu weddi loolu ñoo xam ñoom waxuñu sax ay waxi ismu laahil lu am la loolu ay boroomi xam-xam abu jaafar tabari abul hasan al ashari abu xaatim ibni hibbaan abu bakrin al baqillaani eh, ak yu mel noonu ñoom ismullahil azam azam boobu siixat tafdil boobu azim lañ koy tekkee waaw ah, azim lañ koy tekkee ñoom dañuy gëm ne ismullahil azam loolu amul wala ñu jàpp ne azam bi mooy maanaam yool bu bari nga ci amee azam sababu daa yi moo tax ñu koy wax loolu ibnu Xibbaan wax na loolu noonu nga koy toppe kon ismullahil azam tur yàlla bu màgg bi benn tur la ba tey jii fii waxtaan wi toll ci Omar te leeragul ne wuute am na ci ci lan mooy lismullahil azam leeralagu ko bu demee ba ci kanam nag dana jaxasoo jaxasoo goo xam ne ismullahil azam yu bari yu bëri lu bari ngay boole yu bokkul yu mënta ànd yu bokkul lii lii lii ngay boole pour mu nekk ismullahi lazam kon nga xam ne asmaullahi al uzma tudd ndax ay tur yu bëri ngay gis ci li muy wax moom ban moo ci ismullahi lazam loolu la wax ismullahi ismu benn tur la ismu allah ismullah turu yàlla bi du ay turu yàlla kon benn tur rek la mën a doon turu yàlla bi al azam tur yàlla bi nga xam ne moo gën a màgg benn tur la benn tur la war a doon Omar ba tey jii benn tur moo fi nekk waaye bu demee ba ci kanam dañ la indi yeneeni xeeti tur yu bokk ak yi muy njëkk a wax te yooye itam nee na ca la bokk yooye itam ismulaay al azam la loolu lépp di wane ñàkk xam gim ñàkk xam wuute bu rëy wi nga xam ne moo nekk ci kii ba kenn mënu laa wax ne ismulaay laazam mooy bii te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ba tey musul tudd benn turu ni tur wii mooy ismulaay loolu amul ci benn xadis ci àdduna bi la wax de ci benn téere boo xam ne dana tur wii mooy tur yàlla wi mooy ismulaay laazam loolu amul ci benn xadis amul ci benn xadis léegi nag ñu doon a déglu Omar ismulay gis nga mbokk yi dégg fii boo dégloo <laughs> danga nga gis ne affaire baa ngi tàmbali di yaatu ndànk-ndànk nee tur yàlla yépp moo màgg waaye def cee am yoo xam ni ay tur yoo xam ne yenn yi dafa ñëw ci alxuraan yenn yi dafa ñëw ci ay hadis te yooyu yëpp ngay boole de yooyu mooy ismullahi lazam ban la ci ismullahi turu yàlla bi mu ne yu bari yoo xam ne yenn yi day ñëw ci alxuraan yenn yi ñëw ci ay hadis kon kay ay turu yàlla la du benn turu yàlla te ba tey may répété waat même yi muy indeeg yim nar a indeeg yim waxul ak yim waxagul ak yi kenn waxul ak yi yéen ñeneen di wax amu ci benn boo xam ne yonent bi daf ne turu yàlla wii mooy ismullah musul yonent musul joxoñ benn turu yàlla ni wii mooy kii loo fi dégg ñun la turu yàlla wii mooy lismullah laazam ci xadis yi ñuy sukkandiku amu ci benn xadis boo xam ne yonent moo duut baaraam loola ruwaat yi kay ñi nettali xadis bi ñooy wax ne la yonente wax lii lañ ci déggee ñoom ñu déglu Omar xadis bu muy njëkk a indi xadis bi mu njëkk a wax mooy xadisu abu umamata albahili abu umamata maanaam même Omar buy wax baati tur tur yi da xam ne daanaka jàngul dara firul ijji abi abi day fekk daa am lu ci dugg mais moom abu umama neena na loolu la wax abu umama neena su fekkee da dugal baahili doo wax abu umaamal baahili kenn du ko wax umaamata abu umaamatal baahili nee na loolu lees di wax abu umaamata nee na waaye abi umaamal baahili nee na loolu mooy lan aywa abu umaamatal baahili dafa am lum wax jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa te loolu ñëw na ci téere yu bari xadis bu wér la itam ci lu boroom xam-xam yi wax yonent bi sallallahu alayhi wax ne ismullahi al bi nga xam ne lu ci waay ñaan yàlla yàlla def ko ci saasi yàlla nangu ko ci ñetti saar mi ngi ci ñetti saar mi ngi ci ñetti saar ci alquran mi ngi ci baqara mi ngi ci ali imran mi ngi ci taaha fii la xadis bi yem de waxu yonent bi foofu la yem léegi ban fan lañ koy génnee ci taaha fan lañ koy génnee ci baqara fan lañ koy génnee ci ali imran loolu yonent waxu ko ba tey ji ban baat la ci nan lañ koy composé yonent waxu ci ba fi may waxante yow de xanaa suba xëy na yonent bu dekkiwaatoon wala mu ñëw wax ak ñun waaye ba tey jii yonent waxu ko léegi nag boroom xam-xam yi nag dem gëstu ji ne taaxaalu fa nekk baqaralu lu fa nekk nàngam lu fa nekk am kenn ku ci génne te mooy raawi bi fii qaasim ibnu abi abdirahman alqaasim moo wax ne man de bi ma gëstoo daal gis naa ñetti aaya yoo xam ne ñëw na ci euh, euh, baqara ñëw ci ale ñëw ci nàngam wax comme li Omar Sall wax léegi yi am xayyul qayyum mu ne kon xayyul qayyum mooy lismu laa lazim loolu waxu kan la waxu kan la waxu taabii du waxu sax saxaaba taabii moom moo am xalaatu ne ñetti aay la la yonent jublu dama ne même suñ jàppoon ne ñetti aay yooyu noonu la amee wér na waaw su ma ne allahu ne laa ilaha illa huwa alxayu alqayum léegi ban la ci allahu turu yàlla la laa ilaha illa huwa yàlla lay jujj alxayu alqayum beneen bi mooy kan moo wax ne alxayu alqayum ñaari faaw nga boole leen alxayu kese est-ce que mënuñoo wax ne loolu mooy li yonent bëggoon a junj wala alqayumu kese walla huwa ji nekk foofu wala allahu ban la ci ban la ci mooy su fekkee ne dem nañ ba nangu ne alxay ñetti aay lii la ñaata ay turu yàlla moo nekk ci taaha ñaata turu yàlla moo nekk ci ali imran ñaata allahu nekk na ci nekk na ci kii yëpp te loolu Omar Sall wax xam nga amul ci xam Omar est-ce que xam na ne euh, aaya yooyu amul ci hadis bi est Omar xam na loolu aaya yi mu tudd noonu loola ab taabii moom moo ko gis-gisam la waaye du waxu yonent bi est-ce que moom xam na loolu yonent def na ci ñett yi la nekk te yonent wax na beneen xadis bu wér boo xam ne dafa génne benn lismulaay la azam ci suuratul baqara te du xayu du qayyum xanaa boobu moom buñ ko indee day xam moom Omar ci même xadiis yu wér yooyu beneen xadis a nii bu wér ci ismulaay la azam yonent bi sallallahu alayhi asma bintu yazid moo wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee mi ngi ci ñaari aay yi déglul aay bi da ba xam da nga dégg xayu qayyum wa ilahukum ilahum waxid laa ilaha illa huwa arrahmanu arrahim wa ilahukum ko laa ilaha illa huwa arrahmanu arrahim nee ci ñaari aaya yooyu la nekk aaya bi ak tàmbali ma baqara alif laam miim da nga ko ci boole est-ce que alif laam miim du turu yàlla bi sax alif laam miim allahu laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum nee na ismul azam mi ngi ci ñaari aaya yooyu mi ngi ci ñaari waaye lan la ci lan moo ci ismul azam ci ñaari aaya laa ilaha illa huwa la ndax laa ilaha illa la am na am na ci ñaari yëpp est-ce que du laa ilaha illa huwa mooy wala arrahmani la wala arrahim wala wala ay xaraf la yoo xam dafa composé wu ci aay yi lañ koy jële wala wala lool dara leeragu ci ba tey di kon islam ba léegi mi ngi nëbb ba fii ñu toll nii dara leeragu fi Omar moom li wax yonent moom daf ne ci ñetti saar yooyu la nekk yonent waxul ne aay sàngam la abadan يونت نك في لا وخي اي تآي بي أم الحي أم القيوم وإلهكم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مم تدن الاسم لا يلازم تكوى فرانسان بمجيح تيوخل آي بي Omar dafa am benn waay boo xam ne dafa perte bitig bu doon jaay na mu gis benn xaritam di ko jàmbat fan la mën a am ku ko ñaanal ndax eh, perte na loolu te xaalis bi digg na ci loxoom nee na ñu ne ko demal seeti sëñ Omar Sall Oustaz Omar Sall kon Oustaz Omar Sall faaw mu nangu ne moom dafa bokk ci sëriñ si ñaanalaate moo xam nag li ñaanee sunna la wala bidaa la wala lu mat doon waaye moom ci sëriñ si la nit ñi dañ koy jublu léegi di sàkku ci moom léegi weesu na ay reena ki xancake yu mel noonu léegi moom day bind laate di ñaanalaate di digle ay mbir ci koo xam ne dafa am ay jafe-jafe àdduna bi waa ji demee wax ko loolu nag mu jox ko ak ñaan moom Omar Sall te ñaan gi kat yeneen waxul woon ne dañ koy ñaan ci soxla de yonent day faj sàngam ak ñaan la goo xam ne daa am ku ko ñaan ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooko dafa amewoon bor wala déet amewul woon dara kooko lu dafa feebaroon wala déet kooko daa am façon kii bu ko dal kon dafa mel ne Omar ñaan gi mu joxe yonente saa sallam moo ko joxee daal gii daal lépp lu ci waay ñaan yàlla nangu ko te mooy lismullahi l azam noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxe waaye lan mooy lismullahi l azam ci biir ñaan gi bu fekkee ne Omar dafa jàpp ne alxayul qayyum mooy lismullahi l ci ñaan gi am na riwaayaat yu bari yoo xam ne baatu xayu qayyum bi amu ci ci waxi anas dinaa ko indi léegi yaa zal jalaali wal ikraam am nay boroomi xam-xam yu wax ne mooy lismullahi al azam waaye omar fam teg ne maanaam ñaan gi daal yéeme na lool te moom day faj lépp te mooy lismullahi al azam fam ca teg mooy waa ji bi mu ko ñaanalee waa ji dafa réussir te e, daanaka ay millions lu teg daal da koy gañee ba di ko participer ci ay ci ay dons yu ñuy def ak yu mel noonu maanaam waaje faqiiroon noonu doon daanu di jooy di kii kooku moo mujje noonu ci barke ñaanu Omar Sall gi nga xam ne Omar Sall ko jox jële ko ci xadis bii kon Omar bàkku na ci ñaan gi waaw bu ko ñaanaloon mu gën a suux nag loolu day tegt na ñaan gi baaxul wala te Omar foofu lay taggee ak ñaan ñaata nit ñoo fi dem ci ay sëriñ ñu bindal leen këyit ne la sangoo ko lépp dox ci saasi ñaata nit lañ fi bëgg a tëj ñu bindal leen ay aaye alquran ñu ñu xooj ko sangoo ko kenn du leen tëj ñaata nit ñoo fi am problème ñu réglé ko noonu ñu jox la turu yàlla moom ay turu jinne de yaa hakim wala yaa fattaaxu yaa nangam nga sikkar ko nangam am li nga doon wut ci saasi ñaata nit a ko fi def te loolu kat gars yi dañ koy bañ de yaa fattaaxu nga am problème yàlla tijji la yaa fattaaxu bi ngay def nangami yoon ci guddi gi boo boo sëlmalee say ñaari rakka nga def nangami yaa fattaaxu booy xëy suba problème di réglé wu te loolu boo ko waxaa bi boo ko wax du ko nangu day bañ danaan la yonent bi xam nga naa numéro bi nga joxe noonu nombre bi nga ko war a def ak nangam nangam kallaw kallaw mbii ci baa nangam nangam waaye ñoom seen ñaan yi ñuy joxe moom loolu amul problème loolu amul problème léegi nag si lii mu wax nii moom Omar te ni ci xadis bii la jóge xadis bii am na yeneen riwaayaat yu bari yoo xam ne am nay baat yu muy yu mu wax fii yaa xayu yaa qayumu masalan nekku ci léegi su boobaa yaa xayu yaa yu moom est-ce que la kon est ce que mooy ismul lazam bi yonent doon wax parce que am na riwaayaat yoo xam ne loolu nekku ca ban riwaaya mooy bi gën a wér ban moo jógee ci làmmiñu yonent bi wala làmmiñu waaja te yépp xadis yu wér la benn ngi nii xadis bu wér la ci sunan tirmisi abwaabu daawaat an rasulullah sallallahu alayhi wasallam <coughs> anas ibni malik mooy wax mu ne waaja lam doon ñaan ci julleem ga def ni allahumma laa ilaha illa anta al mannaan بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يهم أمل أشهدك أمل أن لك أمل نعم الله ما لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام ديار لول مو نيك ترمذي تي حديث بو وير مسند الامام احمد انس بن مالك دا لي ne waaje daf doon wax ne allahuma inni asaluka bi anna laka alhamda laa ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannaana بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أمر يا حي أمر يا قيوم أنا اسم الله العظيم مويلان مويلان تي تي ñaari hadith yi ma indi ci sunanu ibnu maaja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dégg waa ji di wax ne anas bin maalik mooy ne te allahuma inni asaluka bi anna laka alhamd laa ilaha illa anta waxdaka la sharika laka almannaanu badiu samawati wal ard zul jalali wal ikram boobu amul yaa xayu amul yaa qayum ban mooy ismullahi al azam bi lan moo ci ismullahi al azam bi li yonente wax ne lii ñaan na yàlla ci turam wu màgg wi ci ismullahi al azam léegi génneel ma ismullahi al azam bi fii est-ce que allahuma du ismul azam am na ñu wax loolu almannaanu nga yaakaar du ismul azam zul jalali wal ikram nag baatu badiu du ismul azam lan moo la ci wóor dara amu ci amul dalil amul benn dalil boo xam ne nit mën na ci sukkandiku ne bii mooy ismul azam da nga sa dégg-dégg sa gis-gis la yow da nga ci am gis-gis keneen am ci geneen nag lii mooy tegtale ne Omar moom yaa xayu yaa xayu bi ci xadis bi loolu moo tax moom lu jublu ne yonent bi sallallahu alayhi loolu la jubloo wax yaa xayu yaa te loolu amul bu amoon yeneen xadis yëpp day am yaa xayu am yaa xayu waaw xadis yeneen yëpp wér na nag yëpp wér na te amuñu yaa amuñu yaa xayu loolu nag teewul yaa xayu yaa qayyum di ñaari tur yoo xam ne yu bari doole lañu lool lool lool ci tijji ay buntu yu tëju nag loolu kenn du ko jàngal nit yi tasawuf yi waaw taalibe yëpp xam nañ dog bu ñuy def ci yaa xayu yaa qayyum ah, nàngam ci lim dégg nga boo paree am na noo ko noo ko noo koy am na tëj tëj boo koy tëjee ah. allahuma inni asaluka bi azimi asmaika wa bi karimi sifatika wa bi fadlika ala jamii xalqi nangam nangam nangam asaluka nangam nangam dégg nga tëjee ko ñaan li loo bëgg mu tijjee rek waaw loo bëgg mu tijjee rek jafe-jafe moom boo bëggee tàggalikoo moom moom ci taalibe yi moom maanaam del baril yaa xayu yaa qayum waaye loolu taxul ñuy wax lislaam laazam de taxul ñu doon wax bismillah laazam waaw ñaari tur yu foor la yu am doole lool yu mën a tijji bépp bunt yu tën yuy bëril wërsëg dégg nga yuy génnee ci jafe-jafe yuy nangam ak nangam lépp lépp la mat waaye ba ñuy wax lismulaay laazam loolu taxul woon te yonent bi waxul fenn ne mooy lismulaay laazam ba tey ji amul fenn fu mu leeree ci benn xadis waaw xadis yii muy wax moom yaa yàq yaa qayumu riwaaye yii ma indi nii amu ci xadis yi ca aaya alquran yi yonent waxul ne yaa xayu yaa qayum bi ci baqara ak ali ibra ak taaha mooy mooy kii déedéet ay borom mi xam ñoo xalaat loolu ñoo wax loolu mais yonent bi ba tey waxul benn tur ne tur bii mooy lisu laalaat loolu amagul ci benn xadis ba tey ji fi may jeexalee nag mooy <clears throat> Omar même lii nii maanaam xadis bi am na feneen fu mu ko waxee beneen conférence bu bokkut bii waaye nam nettalee xadis ba dafa mel ne xadis ba amul allahumma amul laa ilaha illa anta amul almannaanu zul jalali wal ikram badiu samawati wal ardeek yu mel noonu yëpp amu ci dafa mel ne waaja moom ni mu ko nettalee waaja daf ne yaa xayu yàq qayumu yaa yu yaa qayumu mu ne laqad daa allah bismillah azim noonu la ko nettalee nga xam ne yeneen ba mooy da ngaa bëgg a forcer yonent ne yonent moom wax na ne yaa xayu yaa qayum mooy mbirum te yonent loolu amul ci benn xadis ruha bu bëggee wax dara te xam ne li muy wax du dëgg du tee mu jàkkaaru nit ñi di ko waxee noonu nit ñi di fott su naan waaw macha allah kay sunna bidaa nangam shirk wa nangam tawxiid te fekk dara du ci dëgg waaja dafa wax ne allahuma inni asaluka bi anna laka alhamd laa ilaha illa ant waxdaka la sharika laka almannaanu wala yaa mannaanu badiu samawati wal ard zul jalali wal ikram yaa xayu yaa qayum moom mu koy nettali ci beneen feneen di wax ne waa ji dafa ñëw daal ne yaa xayu yaa qayumu léegi yonent ne ismulaay laazama ngi noonu ba pare nag daat pour sukkandiku ca saaga ñëpp ne nga xam ne moom la tuddee ay wëyu ay wëli ñu yor ismulaay laazam ak yu mel noonu loolu du dëgg ay wëyu la ñu doon kon wala yu mel noonu na soxla julli ñaari rakk allahu alayhi wa sallam benn waay am na soxla julli ñaari rakk ñaan yàlla di ñaan yàlla ci ismihil hayyil qayyum yonent bi ne innahu daa allah bi ismihil a'zam allahu akbar nit ñaan yàlla ne yaa hayyu yaa qayyum yonent bi ne kii woona yàlla ci turam bu mag bi yow ñu ne la ismullaahi aadam moom kenn xamu ko dañ koo nëbb wala yu yàlla yi rek ko xam mooy du dëgg wayu yi ñoo ko xam wala yu yàlla xamaluñu yàlla tur bu ñëwul ci alquran su fekkee wala yu lañ bu ñu xamee tur bu nekk ci alquran du ñu wala yu lañ. dégg nga ci ñàkk teggin googu foofu la moom mablaguhu min ilmi waaye boroom xam-xam yi <clears throat> ñoom dañoo wax ne lismu lismulaay al ñetti xalaat am na ci ñi wax ne ismullahi azam amul liñ jublu ci azam yéegi mooy maanaam rëyaayu lang cay amee tur sàngam ismullahi al azam la mooy tur sàngam koo wax danga ca am lu rëy ci nangam ak nangam weddi benn tur di gën yi ca des waaw loolu am nay boroomi xam-xam yoo xam ne tudd naa ca ñennat am na ñaareelu xalaat te mooy ne yàlla rek moo ko xam xamalu ko kenn kon daanaka dañuy làmbatu comme ni ñuy làmbatoo laylatul qadr ak saatul ijaaba ak ni ñu wuutee ci salaatul wusta dégg nga am ñu wax ne nag euh, ismullaahil azam mooy huwa loolu am na ñu ko wax te loola su fekkee ne lu wér la moo di ne aaye yi Omar Sall doon sukkandiku sànq ismullaahil azam ba moom mënul weddi ne du huwa wala leneen la ndax aay indi yëpp daanaka dana am huwa kon am ñeneen ñu wax ne lismu loolu mooy xalaat yi ñi ko ñi nga xam ne ñoo ngi tàmbale saxal am na ñoo xam ne dañ koo saxal ne amul am ñu ne am na waaye yàlla rek xam am ñu ne am na te xam ko léegi tàmbale indi nag am na huwa am ñeneen ñu wax ne allah mooy lismu laay laazam ndax mooy tur wi nga xam ne askane su ko ci kenn ku dul yàlla mooy tur wi nga xam ne du mushtaq nangam ak nangam ak yu mel noonu am na ñeneen ñu wax ne arrahmanu rahim mooy lismullahi laazam te ñoo ñëpp ci ay xadis lañuy sukkandiku dégg nga am ñu wax ne lismullahi laazam mooy alxayul qayumu comme ni nga xam ne noonu la Omar Sall doon wax léegi loola ay xalaat yi boromi xam-xam la dara mu ci benn boo xam ci yonent la jóge de waaye sukkandiku ko ci ay xadis lu yonent wax ne ñaan na yàlla ci ismullahi laazam ñu xool gis ne xayu qayyum am na ci waaye am na ñu ne alxannaanul mannaanu am na ñu ne badiu samawaati wal azul jalal wal ikram ndax xadis yi ñu mujj sukkandiku nii am na ñu wax ne euh, zul jalali wal ikram la loolu am nay borom xam yu wax loolu ne loolu mooy lismul azam allahu la ilaha illa huwa alxayu illa huwa al ahadu samadu alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad am na ñu ne mooy lismullah al azam am na ñu ne ismullah al azam mooy rabbi rabbi rabbi loolu mooy lismullah al azam dégg nga maalikal mulki am na ñu ne mooy lismullah al azam bu nekk ay xadis la de laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina am na ñu ne mooy ismullah al azam daawatu di nuun dégg nga yëpp ay xadis la kalimatu tawxid qaadi iyaad nee na mooy lismullah al azam laa ilaha illa allah dégg nga am na wali yu wax de daa gis di ñaan yàlla yàlla xamal ko lismulahi azam mu tëdd gént gis e, e, ñu naan ko allah allah allah la ilaha illa huwa rabbul arshil am na beneen xalaat boo xam dafa wax ne ismulahi azam ci biir tur yàlla yi la nekk maanaam du ci benn mais dafa làqu ci biir tur yi ah ci biir làqu boobu nag mutasawifa yi la ñuy tuddee lismulaay al azam loolu lay doon tur yàlla boo xam ne dafa làqu ci biir tur yi la nekk ndax ay xaraf la yoo xam ne mooy composé nga xam ne ay xaraf la yuñ dajale yoo xam ne ci biir turu yàlla yi la jógee mooy lismulaay al wala déet yooyu yëpp maanaam euh, ay wax la ci biir am nañu wax ne ismulaay al du tur xaal kii ki kii kii la bu yéegee ci xaal boobu ci jeex ci yàlla ci jamono ji muy ñaan lu mu wax rek tur yàlla bu mu wax rek boobay lismullahi alazam xaala booba lay doon am ñu ne lismullahi alazam mooy allahumma jarkasi wax na ko ci sharxu jamil jawaami ak yu mel noonu am ñu wax alif laam miim mooy lismullahi alazam noonu di dem ay boroomi xam-xam ñuy wuute noonu dégg nga dafa làqu ci biir tur yàlla yi rek loolu mooy xalaati mutasawifa yi naka lañuy ñuy nag ba ci biir turu yi ñu génnee ci eh, turam wu màgg wa nag wi nga xam ne lu ca waay wax ñu wax te kenn du ko wax ci soxla yi àdduna kenn du ko wax ci mbiri bakkan kenn du ko wax lu dul suñu digganteeg suñu borom lañ ca soxla foofu rek lañ koy lañ ko lañ koy yaakaare kenn du ci caaxaan kenn du ci nàngam loola xalaat yi ay boromi xam-xam la ab dof bu jóg nag di ko weddi mun doo fa mën a teg dara loo wax rek du nekk loola Omar wax na ba wax ji jeex ismulaay laazam leeragul ba léegi kon nag ñu ngi koy xaar ba xam kañ lay leer wasalaamualeykum wa ngi taxawal fii ala ala maa ngi toog fu jege di leen wahaab yi bu fi tàllalu tànk dama ko naan tëb pit tàkk wahaab yi yoon ca xaj lañu wax ngeen ku ci tàllalu làmmiñ naa ko topp kuy montage nag ni lëndëmal teg làmmiñ ñu kenn xamut loola nag mooy seenub cër wasalaamu ala man ittaba al huda